salaamaaleykum mën na bint Samb nekk artiste comédienne Soleil Levant bu Thiès. faire théâtre nag ma ciy dugg yàgg na xam naa ni dans les années 1986 côté yooyu laa ci dugg. Euh, bi ñuy door nag boobu suñu troupe mi ngi tudd nu mbelaan boobu temps bale rek laa daan fecc waaw bale rek laa daan fecc dugg ma ci pes bi. waaw jaar-jaar yu am solo sax daanaka ndax tam biñ ci nekkee buñ ne buñ ne bu ñu amee compétition troupe buñ ne numelaan ngay tasil danga naan déedéet maa bañ bokkuma mujj gi ñun dañuy teg ne ba troupe yi compétir ba pare ñu ñëw ñun daal di jouer dem suñu yoon ndax benn troupe ñemewuñu woon waaw ñun yàgg nañoo weex <laughs> waaw xanaa nag classe bi géwél yi toll rek CM2 uh-huh. foofu laa tolloon eh, jotuma ko am nag waaw gis nga de foofu rek waaw rek. <laughs> Eh, soleil levant kañ eh, ay quatre vingt waaw année boobu laa ci ñëw rek. waaw waaw waaw bi ma ciy dugg nag. troupe rek daal numbelaan la moo jékki-jékki di raam ba tudd soleil levant waaw soleil levant biñ ciy dugg bi ma ciy dugg boobu ñoo ngi doon commencé ci laal ci pièces yi man Saneex euh, Aziz Cheikh Ndiaye góor gi ñu ngi vie ba ak ku ñuy wax sàmba Ndiaye léegi poste la nekk fa lay liggéeyee looloo tax euh, théâtre atul waaw période boobu lañ ci duggee waaw ci laa ci duggee. Soleil euh, man nag rôle bi ma ci gën a marqué marqué mooy toujours man la plupart dañ may def jabaru sànneex dañ ko miis ba rôle buñ ko bokkee rek mooy ñu ñaar ñoo ngi xuloo bu ngeen seetloo bokkaguñu rol bu ñu amee jàmm amagul dañuy xuloo rek. toujours daal lu ci bari jabaru saaneex lañ may def man. Mhm. rôle xanaa bii nii fii ma toll nii bii ma nekkee yaay sumbulu su ma rombee xale yi dañuy daw ndey saan di ma dàqe yaay sumbulu yaay sumbulu yaay sumbulu ak mag ñeeg ñëpp ah, ci wiiri wiiri bi nii vraiment ñu ngi ma ciy ñaanal ñaan yoo xam ne épp ñu ñun ñëpp la ñaanal nag. ñaan yoo xam ne bu ko yàlla nangoo rek yaakaar naa fi ñu bëgg a yegg dinañu fa yegg ci kàttanu yàlla. waaw mhm. rôle yaay sumul nag mi ngi mel ni maa ngi toog ak sama njaboot ñi may defanteek moom ak abi euh, noonu laay defanteeg sama njaboot gi man noonu laa mel naturellement waaw. defante bi mooy comme nii muy bu ñëwee ni ma damay tas ma ne ko doo tas demal nga toog sëy balaa neex foog mu metti ba pare jigéen day muñ c'est parce que man dama muñ fi ma toog fii ma nekk nii dama fi muñ ba tax na sama njaboot muñ rek nag laa leen di wax muñ leen laa leen di jàngal moo tax biñ ma joxee rôlu yaayu sumbulu ak yaayu abi aw ma ci benn problème parce que li may def dama ko dund. Mhm. des na mi ngi génn mais des na très sérieusement munoon na fee gën a neex. waaw mënoon na fee gën a neex vraiment. Euh, xanaa di ko lancer nag président de la république waaw kooku moom war nañoo xool xam li wiiri wiiri def ci àdduna bi mu wooñu sax nag am nu mu defanteeg ñun waaw parce que tey jii ku nekk kër yelloon nag président jox la ko ci troupe bi ah, parce que mérito nañ ko wala ñi yàlla jagleel euh, daraja am nu ñu defanteeg ñun man nag côté boobu maa ngi ciy sant yàlla sant yàlla lu mu néew néew rek sant ko parce que loo xam ne amoo ko woon yàlla jox la ko danga ko ci sant ki may njëkk a sant mooy Cheikh Diouf Kramex kooku lu may def foog ma boole ko ci parce que dafa am lu muy def ci man loo xam ni rusuma toog fenn di ko wax daf may jàppale te yàlla tax ki ci mel ni Daba Soumaré aussi daf may jàppale ca te yàlla tax Maam Dia Cissé ñi may jàppale daal macha allah bari nañ

dañuy ñëw di kaf di ree di dàqe boo ñu fekkee fu ñuy tourné da nga naan déedéet sax vraiment waaw mën naa ko cee wax moom mooy jour bi sumbulu ñëwee gorom génne ko ma war ko fat pour mu fanaan si sama kër yàlla def ñëwewuma ma koo fat yàlla def ñimewu ma sama jëkkër pour fat ko ma ma ne ko demal nga fanaani police xam nga loolu neexul ci xol yow nga nekk ci sa duubul lii tëdd ci mu leer la ni sa kër am nga néeg boo dugal sa doom pour mu fanaan ñimewoo sa jëkkër ba ni ko demal nga fanaani police loolu lu ma naqari la waaw lu ma naqari la waaw sama mbébét moom vraiment su ma sañoon yewoo ci kër goo xam ni man maa ko moom waaw boo xam ni man maa ko moom macha allah yóbbu sama yaay màkka samay doom ma dugal leen foo xam ni duñu réccu dara daal man ci sama carrière buñ koy fàttali ko duñ ko réccu man loolu rek laay souhaité. Hmm. waaw sama wàllu artiste comédien su ma sañoon ma dugg ci kër goo xam ne man maa ko moom waaw. Mhm. mbébét naa ko ci di mbébét naa ko ci bu baax a baax loolu rek laa bëgg mbébét naa ko ci bu baax a baax bu ma sañoon dugg foo xam ne bu ma yeewoo sama njaboot dugal leen foo xam ni tamit ñoom duñ ci ci dara ëllëg daal parce que loo gis tey jeex soo xoolee ñoom ma xuraja gay ñoom bàyyi pël ñoom jibi sàmb ñi fi jaar ñépp ñoom abu kamara ñi fi jaar ñëpp jàll kon nga xam ni lii passe la rek day jeex ba sañoon nag balaa jeex nga am ci loo xam ne boo lëggee boo geesoon ni man kat ba ma ca tolloo lii laa ci réagir. mais troupe théâtre yi mhm. euh, ñuy génne bari na. xam nga dëpp la caméra pour nga def théâtre dafa yomb parce que tey jii su ma nee la action nga def lu ma neexul mën la couper. di la ko defloo di la ko defloo ba nga ba nga xaw a def li ma bëgg danga koy xaw a def rek de xam naa doo ko def man la waaw dajale ko ba mu mas pièce pièce ma génne ko boo ko xoolee xam ne lii du théâtre théâtre dëgg tagguma suñu bopp mais boo ñëwee soleil levant baa nga dem daaray kocc wala yeneen troupe yu yàgg yi ñooñ ñooy théâtre mais ñii di door a jóg léegi théâtre ñu parce que tey jii boo nee boo nee xale bu jigéen bi suba da ngay jouer laaju la sax lu muy jouer dem na salon def na chignon ngandi chignon pose na ongle pose na xef mu ñëw suba nga ne ko mindaan nga imagine toi ndax mindaan dina pose xef chignon mënul ne buñ nee la da ngay jouer suba neel lan laay def ban déguisement lay indi luy sama rôle parce que ñun boo ñu seetloo ba léegi suñu kër lañ ne ci ci wiir wiir yi li ñuy sol xam nañ ko man boo ma fekkul woon may fóot nii di jàppale xale yi kon am na neneen nu ngeen may fekke mais xale yi koo ci ne théâtre tey mu defe ne dafa war a aji màkk xëy na dañuy jaayu tamit sama kàddu gu mujj mooy gërëm sant yàlla bu baax nag julli ci seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant sama borom kër bu baax a baax a baax a baax ndax ku ma jàppale la jox ma laisser paase may liggéey ànd ak sama xel mu dal mësuma tere théâtre bi mukk mësul am mësuma dem ba ñëw mu ne ma foo nekkoon di gërëm nag képp ku ma yàlla boole rek di sant bu baax sant suñu waa nag jigéen di góor parce que ñëpp laa fa am a jàmm ñëpp laa fa seqal teraanga di sant sama yaay mi ma desal ci kaw suuf ak samay frère samay sœur macha allah ak samay dëkkandoo.